yow tewofil mu tedd mi xam nga ne nit ñu bari sosoon nañu bind ab nettali bu jëm ci mbir yi xewoon ci sunu biir li dëppook waxi seede yi ko teewoon li dale ca ndoorte la te ñu mujj nekk jawriñu kàddug yàlla léegi nag kon man ci sama wàll gëstu naa ci lépp li ko dale ca njaalbeen ga te fas la ko yéene bindal nettali la ni xew-xew yooyu deme tembe noonu dinga mën a xam ne li la jàngaloon lu wér la ca jamonoy erod mi nekkoon buur ca réewu yawut ya amoon na sëriñ bu ñu tuddee sakariya te bokk ca mbootaayu sëriñ sa askanoo ci abiya jabaram elisabet askanoo moom itam ci aruna sakariya ak jabaram ñu jub ca kanamu yàlla di topp ni mu ware ndigal yi ak dogali borom bi yépp waaye amuñu doom ndaxte elisabet mënula am doom te it fekk ñoom ñaar ñépp ay màggat lañu benn bés nag sakariya doon def liggéeyu sëriñam ca yàlla ndaxte mbootaayam a aye keroog bi ñuy tegoo bant ni ko sëriñ si daan defe naka jekk ngir xam kan mooy dugg ca barab bu sell ba ca kër yàlla ga ngir taal fa cuuraay bant ba tegu ci sakariya ca waxtu wa ñuy taal cuuraay la mbooloo maa nga woon ci biti di ñaan noonu benn malaakam boroom bi daldi feeñu sakariya taxaw ca féeteek ndeyjoora taabal ja ñuy lakke cuuraay naka la ko sakariya gis fitam daldi dem mu tiit waaye malaaka ma ne ko bul ragal dara sakariya ndaxte sa ñaan nangu na sa jabar dina la jural doom te dinga ko tudde yaxya sa mbég lay doon sa xol sedd ci te ñu bari dinañu bég ci juddoom ndaxte dina nekk ku màgg ca kanamu yàlla du naan biiñ walla dara luy màndil te bu juddoo xel mu sell mi daldi ko solu dina delloosi niti israyil yu bari ci yàlla seen boroom mooy jiitu di yëgle ñëwu boroom bi ànd ak xel mi ak doole ji yonent yàlla Iliyaas amoon ngir jubale xoli baay yi ak doom yi ngir delloo ñi dégg di ci maandu teeg ñi jub noonu dina waajal mbooloo muy teeru borom bi sakariya daldi ne malaaka ma nan laay xame ne loolu dëgg la ndaxte mag laa te sama jabar it màggat na malaaka ma tontu ko ne man maay jibril mi taxaw ci kanamu yàlla dañu ma yónni ngir ma wax ak yow te yëgal la xabaar bu baax boobu léegi nag ginnaaw gëmuloo li ma wax dinga lu te dootuloo mën a wax ba kera sama wax di am bu jamonoom jotee fekk na booba mbooloo maa ngi xaar jaaxle lool ci li sàkkariya yàgg ca barab bu sell ba waaye bi mu génnee nag mënula wax ak ñoom noonu nit ñi xam ne dafa am lu ko feeñu ca barab bu sell ba dafa luu ba di leen liyaar bi sakariya matale liggéeyu sëriñam ba noppi mu daldi ñibbi bi mbir yooyu weesoo elisabet jabaram ëmb di ko nëbb lu mat juróomi weer te naan lii mooy yiw wi ma boroom bi defal ba fajal ma li doon sama gàcc ci nit ñi bi elisabet nekkee ci juróom benn weeram yàlla yónni malaakaam jibril ca dëkku nasaret ca diwaanu galile mu yebal ko ca janq bu ñu may waaju bokk ci askanu daawuda te ñu koy wax yuusufa waaye àndaguñu janq baa ngi tudd maryaama malaaka ma dikk ca moom ne ko jàmm nga am yow mi boroom bi defal aw yiw mu ngi ak yow waxi malaaka daldi jaaxal maryaama muy xalaat lu nuyoo boobu mën a tekki malaaka ma ne ko bu ragal dara maryaama ndaxte yàlla tànn na la ci yiwoom dinga ëmb jur doom ju góor nanga ko tudde yeesu ku màgg lay nekki te dinañu ko wooye doomi aji kawe ji borom bi yàlla dina ko jébbal nguuru daawuda maamam noonu dina yilif askanu ba ba faw te nguuram du am àpp maryaama laaj malaaka ma ne ko naka la loolu mën a ame man de jànq laa ba tey malaaka ma tontu ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko wooye ku sell ki doomu yàlla ji elisabet sa mbokk mi it dina am doom ju góor ci màggetam ki ñu doon wooye ki mënula am doom mu ngi juróom benni weeram ndaxte dara tëwul yàlla maryaama ne ko jaamu borom bi laa na yàlla def ci man li nga wax ci noonu malaakama ma daldi dem ci jamono jooju maryaama jóg gaawantu dem ci benn dëkk bu nekkoon ca tund ya ca diiwaanu yude mu dugg ca kër sakariya daldi nuyu elisabet naka la elisabet dégg maryaama di nuyoo doomam daldi yëngutu ci biiram noonu xelum yàlla mu sell mi daldi solu elisabet elisabet wax ca kaw ne barkeel nañu la ci jigéen ñi barkeel doom ji nga ëmb man maay kan ba ndeyu sama boroom ñëw di ma seet si maa ngi lay wax ni naka laa dégg ngay nuyoo rekk sama doom ji yëngu ci sama biir ndax mbég barke ñeel na la yow mi gëm ni lii la borom bi yégal dina mat noonu maryaama daldi ne sama xol a ngi màggal borom bi sama xel di bég ci yàlla sama musalkat ndaxte fàttaliku na ma man jaamam woyof bi gannaaw si tey niti jamono yépp dinañu ma wooye ki ñu barkeel ndaxte ku màgg ki defal na ma lu réy turam dafa sell day wàcce yërmandeem ci ñi ko ragal ci seeni sët ba ci seeni sëtaat wone na jëf yu mag ci doole loxoom te tes mbooloom ñi réy réylu daaneel boroom doole yi ci seen nguur yëkkati baadoolo yi ñi xiif reggal na leen ak ñam wu neex te dàq boroom alal yi ñu daw ak loxoy neen wallu na bànni Israyil gi jaamam di fàttaliku yërmandeem ni mu ko diggee woon sunuy maam jëmale ko ci ibraayima ak askanam ba faw noonu maryaama toog fa elisabet lu wara tollook ñetti weer soog a ñibbi ginnaaw loolu jamono ji elisabet wara mucc agsi mu daldi jur doom ju góor dëkkandoom yi ak mbokkam yi yëg ne borom bi won na ko yërmande ju réy ñu ànd ak moom bég bi bés ba dellusee ñu ñëw xarafal ci xale ba bëggu ko duppe baayam sakariya waaye yaayam ne leen déedéet yaxya lay tudd ñu ne ko amoo menn mbokk mu tudd noonu ñu daldi liyaar baayam ngir xam nan la bëgg ñu tuddee xale ba sakariya laaj àlluwa bind ci ne yaxya la tudd ñépp daldi waaru ca saasa yàlla dindi luu gi sàkkare daldi waxaat di màggal yàlla waa dëkk ba bépp jaaxle xew-xew yooyu siiw ca tund yude yépp ñi dégg nettali bi jëm ci mbir yooyu dañu ko denc ci seen xol te naan nu xale bi di mujje nag ndaxte leeroon na ne doole boroom baa ngi ànd ak moom sakariya baayu yaxya daldi fees ak xel mu sell mi noonu mu wax ci kàddug yàlla ne cant ñeel na boroom bi yàllaay israyel ndaxte wallusi na mbooloom ba jot leen feeñal na nu musalkat bu am doole bi soqikoo ci askanu daawuda jaamam ni mu yégle woon bu yàgg jaarale ko ci yonentam yu sell yi ci sunuy noon jëlenu ci sunu loxoy bañaale yàlla wone na yërmandeem ji mu digoon sunuy maam te di fàttaliku kóllëre gi mu fas ak ñoom di ngiñ li mu giñaloon sunu maam Ibrahima naan dinanu teqale ak sunuy noon ngir nu mën koo jaamu ci jàmm nu sell jub ci kanamam sunu giiru dund yow nag doom dinañu lay wooye yonentu aji kawe ji ndaxte dinga jiitu di yégle ñëwu boroom bi di ko xàllal yoon wi dinga xamal mbooloom ni leen borom bi mën a musale jaare ko ci seen mbaalu bàkkaar ndaxte yàlla sunu boroom fees na ak yërmande ba tax muy wàcce ci nun jant buy fenk ngir leeral ni toog ci lëndëm takk ndeeru dee tiim leen ngir jiite nu ci yoonu jàmm noonu yaa ngi doon màgg te xelam di ubbiku mu dëkk ca màndiŋ ma ba bés ba muy feeñu bànni Israyil